lu gàtt gàtt gaal mbir mi daal jël na ci xaaj taf ko ci boppam muy petit ampleur muy ndigal <laughs> moom lañ toogal tey dañ waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy ci carrière am Aïcha laa ci àndal moo ne ci bi su nekk rek ayaa ngeen ciy euh, moo ne ci micro bi dama koy nuyu moom ndigal bu école de lutte Balla jox ko mu nuyoo après ñu woyal li nga xamante ne mooy waxtaan bi ndigal wala petit petit ampleur maa ngi lay fay bu baax di sant yàlla bu baax di julli si bi di sant waajur yi bu baax a baax di gërëm fi ma fekk mooy Papa Labe di ko nuyu en passant ak booy mi yëpp di ziar waa Géejawaay yëpp di nuyu sama sëriñ sama xarit sëriñ Abdallah Diouf di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax baax di nuyu Père Diaw bu baax di nuyu waa Géejawaay école de Balla Gaye yëpp di nuyu Balla ngay 2 ak Abdou Aziz Ala Ndiaye ak Baye ak Masata Babacar ñëpp ak képp kuy jàppale ndigal waa Pàqu Lambaay sëñ Daam ak sëñ Sadio Ndiaye waa Papa Gueye Fall ñun sëñ Bàkki Fall waa défense ñoom bay défense gaa yëpp ma leen di bëggee nuyu yëpp waa xel ko yëpp maa ngi leen ziar. Mm. allah noonu la nuyoo mu ndigal bu école de lutte ndigal petit ampleur lu tax nga jël affaire bi yow xaaj ko daal yow taf ko sa côté rek ñëw ne man maay petit ampleur. <laughs> waaw xam nga loo gis àdduna su amee bu mag dina am bu ndaw te comme ñu ñoo ne woon si combat bi daw porté ko yal ko di daw moom di coow si rajo yeeg télévision yeeg fu nañu coow fa école de lutte Balla Gaye bëri na mbër Balla Gaye bëri na ay na mbër yi koy jàppale mais nag bokk ma see kenn ñu koy porté ginnaaw bu ñu àndee entraînement def lépp nag damay tourné waat porté communication bi di wax man la ñuy saaga man la ñuy xas ñi naan ma doo gëmoo sa bopp te effort accord loolu quoi yàlla moo la may nga mën a communiquer si dara te kii sa kilifa ci lii nga koy communiquer euh, soo gisee nit wax si moom lu jaadu nga génn répondre xam nga loolu dafa am important léegi nag du ma sonn ci yooyu yëpp ba yàlla may ma ndam lii mm-hmm. may bàyyee kenn ampleur bi ampleur bi ne man maay petit ampleur waaw Balla Gaye mooy ampleur bu mag bi ñun ñooy ampleur yu ndaw yi ñu waa ay Youssou Fils de Balla Gakou 2 et cetera waaye ko dee Balla Gaye daal ampleur yu ndaw yaa ngi fa comme ni ampleur bu mag bi nekkee foofu suñ kaw. Mm. ay te ndigal dañu gis euh, combat Balla Gaye bi ndigal da nga jël combat def ko juróom-ñaari bool séddale koñ bi fu ne nga joxe fa ay bool yenn yi sax dégg naa dañoo jël <laughs> dañoo jël soow meeg laax mi xaaj xaajaat ko yóbbu ko ci yenn koñ yi ndigal combat bi lu tax nga yenn woon ko sa digganteeg Balla Gaye moo toll noonu wala. non man nag mënu ma cof sama nit man ñëpp ki ñoo xam sama yaay bi ma jur xam na loolu si man man moom damay def rek wala ma baax man du ma dem demi mesure ci lu ma doon sama nit bu nekk sama xarit yi may àndal sax par par hasard sax man su may fo sax dama fo bu baax laay fo dañ ma daan bu njëkk dañ ma daan yàlla na yàlla lu baax parce que man lu may def rek lu ma ko defantu quoi ma si sama diggante ak nit parce que damay bëgg nit ku ma àndal la ne yéene naa la comme li nga yéene sa bopp yow waaw man noonu laay àndee nit su ma ko mën damay ñëw di rëkkale taxaw na du ma ñëw du ñëw mais nag comme moom dafa jël combat am wóoluñu si booluñu si ñuy lépp lu ko mën a may ndam rek dañ koy def doon nag yàlla mooy may ndam te mooy muy jàmbaar góorgóorlu bu kenn ñëwutoon ni moom liggéey na moom waaj na moom kese lu ko mën a may ndam mais ñëpp dañoo ñëw sos si rek ma ne mag nekk Aziz Aziz Ndiaye te ndamul Aziz Ndiaye mooy sama ndam yaay Aziz Ndiaye di sama xarit sama yaay di ma defal loolu yaay mooy sama ndam combat bi dafa bëri woon li ma si duggee dafa bëri daal dama see dugg ngir Balla Gaye dugg si ngir famille Aziz Ndiaye dugg si ngir yaay Aziz Ndiaye waaw moo doxoon ma sonn ci dama stressé woon si combat bi quoi. soo déggee yenn communication yi ci li li ci nit ñi di wax nit ñi dañu doon saaga ay suq Balla Gaye la gëmul boppam Balla Gaye nga topp des fois boo toogee ba dégg yenn wax yu ñaaw yi ñu lay wax en tant que koo xam ne ndigal la wala day topp Balla Gaye numéro lan nga yëg. waaw xam nga doo doon sëriñam Balla Gaye moom ko topp topp ko gën a suufee Balla Gaye. waaw parce que Balla Gaye mënut a nekk li mu doon si làmb ñu doon ay mbër nekk écurie mm-hmm. di ñaan yàlla mel ni moom wala ñu romb ko te muy lu jafe nag man li Balla Gaye yombul ñu war a ko tarbiya topp si ginnaawam si wàllug làmb comme li ma ko wax chaque jour man naa wax wax si Balla Gaye ci leneen mais làmb mosuma see critique Balla a critique parce que xam naa kan nekk dara te ba tey moom bu si nekkee dara dañuy xam ne loolu moom yombul ñu ay borom xel lañ kon mooy ñuy wax dañoo xamul rek Sénégal da ngay gis ko naan la bul topp lii te am na xayitam bu muy àndal ñaa ñu ànd sax ñu dañuy toppante ñun dañoo dañoo war a topp Balla Gaye dañ ko war a topp ko war a ngir ñu am si barke bu am si làmb waaw moo tax ñuy wax xawuñ pareegu ma sax pour topp ko nag damay ko door commencé waaw damay a commencé nii ko bëgg a téye naa ko bëgg a yëkkati gën naa ko bëgg taxaw quoi parce que gis naa ne moom bu coowam suñu yàlla mu ñu siy may coow gis naa ne dara jaam yàlla ngi si yëkkati waale kon nag kooku noonu boo nekkee si gaalam na ngay ñaan yàlla gaal gi raw mooy pas muy dig da gëm naa ne bala ngay digee ndigal kese du si moo si perte waaw moo tax ñun lépp luñ mën ak li ñu xam dañ ko taxaw bala Gaye ba mu réussir àggale des si carrière am allah. su ma la déggee yow moo waaw déggoo coowam parce que Balla Gaye moo indi coowu làmb Géejawaay ndax am na gox yu nekk si euh, Sénégal amuñ coow si làmb comme ni Géejawaay amee coow te Balla Gaye fi am moo fi indi coow li. waaw na am na gox yoo xam ne si làmb amuñ champion mel ne Balla Gaye te seen bëri yi am dañ leen a favoriser day foog ma ne laay tudd rek Ada xoolal ni dayoo bi am suñu tey soo doon xool si làmb maa ko ëpp doole mais gis nga waa Fass fi ñu ko teg kon ñoom bu ñu amoon Balla fi ñu koy teg léegi nag ñun ki ñu am nañ ko xam te su fonk ko quoi moo tax ñun nag xaaruñ si kenn man boo xaaruma si waa Guédiawaye xaaruma si waa école de Balla maa sang Balla Gaye moom seet ma teg ko nii ku wax lu négatif ma nangam ku saaga ma nangam ku tooñ ma nangam ku def na ko suul ma nangam taan lu baax lay dégg moom lay gis parce moom la fi jëf ci làmb ji mbëri nag ne ndaw yi nekk géejawaay nag samay xarit nañ mu mel ne bébé Elton ak 5 tonnes maa ngi leen alerte. Balla Gaye du seen morom waaw damay ñëw rek moom géejawaay si yëpp la yëg man sama xarit la bokk naa ko njëkk takkal ngéem mu ngéem boo sama kër. waaw man mbër mbër géejawaay yi mu si deful teraanga bariwul sama kër la ngéem boo premier combat am mbapat maa ko yóbbu. ki muy bëre tamit ngémboo sama kër ñoom ñaar ñëpp parce que ki muy bëre sama rakk lay àndal man may ànd ak moom man ngémb ko yàlla may ko ndam xam nga kon tey bu ñu dem ba jamono ne nga jógee école de Balla Gaye mënuloo sa nit la ñun loolu suñu yoon nekku si am nga si plein droit mais nag bu mu tax ngay saaga géej waaye xas waa géej waaye sama xarit nga nag alerte naa la Balla Gaye moom ñu koy jëflaan directement do indirect ba sa buntu ka woo la nga génn ma duma la ñu vidéo ko ma duma si mbedd mi ndax reewande reewande moo koy faj ñu da ngeen am yar yéen ngeen baal ma quoi dafay góoon daal si làmb ay xale ngeen su ko saan seen kay mais wax ju ñaaw amul njëriñ quoi parce que maa ko xamante seen seen leader la ngeen koy wàcce bëgg a yëkkati leaderu jàmbur loolu may ma ko si kenn te nag xamante nañu bu baax su ma leen ko waxee ñoom nañu ko gëm ndax maa leen gën a capable si côté yëpp 5 tonnes yaag bébé Elton nag avertissement naa leen bu mu amati wax yi ñuy wax si Balla Gaye ak Aziz Ndiaye na dakk waaw. mais est ak euh, bébé Elton est-ce que yow tamit mën nga leen a alerter pour ñuy bañ a wax ci Balla Gaye. suñ ko defaatee ma duma leen. nga foofu loolu. Balla Gaye du seen morom bu doon la wax lu am sax si Balla Gaye moom mais di créer toog di wax la neex loolu du dëgg du yoon Balla Gaye kilifa la na amul jot ko amee man leen dem fekk seen kër ma man ma leen dumaa nag ñu yoon yoon atte ba xam ñoom li ñu wax ko teg kenn bëggul ñu teg sa kilifa di ko xaas ak toroxal. est-ce que boo la man maay Balla Gaye maay Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye sama mag la Balla Gaye sama kilifa si làmb kon lan man lan xaar ci loolu. da ngay xaar Aziz naa ma dumaal bébé ak xaar parce que li ñuy neexuma te du dëgg du yoon da ngeen a bokk benn géej waaye secteur bu doon Balla Gaye def ko da leen ko Balla Gaye loolu du lañ kenn ki ñoom ñaar ñëpp samay gaañ lañ kii suñu écurie la nekkoon kii ñoo doon préparé ay combat yu bari la moo fi jar wax fi jar ngi bëgg coow ak bës mais dëkk dëkk tamit géejawaay taxul tamit ngay jeter fleur Balla Gaye am na ñoo xam dañuy dëkk géejawaay te faral luñ Balla Gaye numéro deux wax ah, uh-huh. li ñuy wax nañ ko teg si yoon uh-huh. Bébé Elton démb dégg naa mu ne mbër mu nekk géejaay su ma jëlee ma nangam tànn dayam loolu fan la tege. yow xam nga doo bëreeg waa géejawaay nga bëgg a taxaw di ñu saaga ngir bëgg leen ko keneen dama yow lii wax ji daal gudd mu gàtt dinaa leen noq bëccëgu ndar kam man maa la ko wax foofu laa yem. fa laa yem kay li ma si wax du si sori parce que su ma si wax ni day mel dara la waxuma si pour communiquer dama ne nañ bàyyi dépassé bi sinon man ndigal maa lay ñëw duma leen bëccëgu ndar kam seen buntu ku nekk nag sa buntu kër laa koy defee mu leer li ma wax eh, euh, am benn mbër bu mag bu nekk géejawaay 4 millions lañ ko wax naa leen ko pare naa ci du eh, nañ naa ci dama ne leen li ma leen wax naa leen ko nañ bàyyi seen ñàkk réewandeg ñàkk kese gi ñekkee di wax Aziz Ndiaye lu bon ak Balla Gaye parce que ñaari leaders yi gën a nekk mag géejawaay bokk nañ si dañuy fontoo Aziz Ndiaye tey ak Baye Ndiaye bu ñu nekkutoon ñun mu ñaaw ndax duñ bëre Balla Gaye moo ñu indi lépp luy teraanga si làmb fii ak trophée kon bu ñu fontoo foofu laa yem du ma si débat taxuñ maa jóg quoi ma ne fi débat mais samay gaañ lañ ma leen ko alerté wax leen ko pour mu dakk fa laa yem. mais li nga na la maa leen di xaar man ay tonton duma man ñoom dañuy wax man waxuma damay damay jëf man li ma si wax bëgguma si débat quoi ñuy sori si débat bi nañ wax ci leen ayca am na solo. macha allah ñu dalal ko moom ndigal ba école de lutte Balla loolu la Sénégal moom. waaw loolu baax naa ko de. man loolu moo war a war a gën. man sama Balla Gaye Balla Gaye amul loolu xoolal ki ñaar waaye mënul ko war a gën Balla Gaye. parce que Balla Gaye moom roi la woon te ni ko mën nga doon rek loolu. muy dem daan ku nekk roi jëm. mooy mën nga bu daanee ku nekk roi mooy roi. Balla Gaye amul important wu. Mm-hmm. mel na ni mën loo am da ngaa jox ko da ngaa mën doon am te moo xam dafa am sa xarit. kon yaakaar naa su ma soxla ma doon nit ñi nag ñoo bàyyi xel communication. nit ki nag ki la daan ñaaree am na droit ne doo sama roi parce que maa daan mooy roi mooy mm-hmm. doo sama roi. Mm-hmm. mun la taxoon doo sama roi. Mm-hmm. loolu nag parce tey roi mën nga ko doon. trophée roi bi ñu wax. mais nag nit ki bu la daanee ñaari yoon tey mosu ko koo daan. mën ngaa bañ a nekk roi foofu laa yaakaar dafa la jubloo mais Kanta bu ñu ko jubloo woon loolu Balla parce que mën na nekkee wala nekkee waaw muy nan daan ko wax. xëy na li ko jëlee bokkul ndax si du daanu nga ñëw daan ko yemut ak bi su ma loo jël su ma mën doon xëy Balla Gaye jël ko. am na seen benn Balla ko neexee am seen bu ko neexee wax loolu. am am seen am na seen am na droit mu wax loolu hmm. léegi nag dem jëli empereur bu ko neex su ko mënee jël si pareeg nag dem jël. mais ampleur bi des fois boo toogee gars yi ñu critique nag ampleur bi ñu Sénégal ñeneen ñi doon fi ampleur ampleur fi ñu jumboo naat affaire bi bi sax petit gars lañ yooyu après <laughs> lan lay def. waaw dama ci wax daal ah mbir mi moom Sénégal la. li sa xarit amul wala sa amul wala sa mbër amul wala yaa nga sa xol. mais ko amoon sa kër jël. ndax loolu dañ la ciy fay. Mm. nga ciy am ay trophée ñu la ciy fay sax weer un million cinq cent loolu caaxaan. Mm. da ciy am tamit ñooy jox département dund si li mu wax loolu caaxaan. Mm-hmm. waaw mais nag adversaire xam nga lu ma ñoom tey bu ñu koy waxee c'est normal parce que moom mi ngi mel ne man may classe Modou Lo wala dara man de su may classe Modou Lo mm-hmm. classe moom ngir mënoon champion ndax Modou Lo ëpp mosu ma te moom it xalante ba nekk roi des arènes. kon pour naa fekk xam nga jàmbaar. Mm-hmm. waaye nag dama koy classe ngir nag ñu Balla Gaye bu loo mën a siisu ne kon xaaral ma ñëw leeral ba maag Balla Gaye exemple quoi wala ba loo ne ndigal mi wala benn dugg si biiru jàmm ba man tey Balla Gaye classé wala mën ñoo bëri ñu kon ñu a ëmbal yi mais nag kanta diw mooy lii ak diw ku koy wax ku lekk rek rafet ñu naan sama doom. xaaral nga jël tamit dégg nañ ko mu toog ñëpp di ko dégg ñu ne baal na ko fi mu toll nii ba ngeen mën ko def parce que benn son boo xam ne teg na ko def bu ko fayoon nañ moom dafa mën a bëri mën a bëri mën a mais biir biir biir ñu ne tamit dégg nañ ko ñu ñu mën a fay mën a mën a jëlaat. alors noonu la moom teewlu na daanaka bëri fos parce que moom doom bëri sant yoon. moom bëri na baal na deux fois jéem na xam ne mënu si dara. am na droit toog moom teg si wàllu si laaj bi loolu bëri moom loolu kenn mënu ko si dañoo ko seen askan mais dafa yor loo xamante ni boo yor mënoo ko ànd ñu ngay bëree da ngay bëree ñu nga war a bëree mhm. parce que roi des arènes boo ko mos a yor da ngay xool gën a prouvé wala gën a gën a sës wala gën a def exploit nga tourné bëree moom mais roi si mën loolu moom mooy tànn ñu ngi bëreel mais ñu laay may sax ñu la am ay parce que moo yor cëgal bu yem mais kan daa xale ay xaalis waxoon naa waxoon naa doo si débat parce que xaalis dañu ko doon bu mënul jël combat bi da ngay jël koy doon jël naa ko. parce que ni suñu kilifa la. te déglu ma lu mu wax moo tax mu monsieur Sonko mais daal li ma sànq mooy mënuloo. moo war a jaral surtout la amoon combat kon mënul Balla Gaye combat. mu ngi si sooy Balla Gaye naa wutu a soxla raas Eumeu Sène moo war a soxla raas. xëy na mën na bëgg a bëri Balla ngir li Balla yor na ko ñëpp ko soxla muy di fa yokk sa weer. ñëpp ko bëgg. mais à part loolu yaakaar naa waruñu soxlaante loolu quoi. kii daal daal te mu ne parce que ampleur parce que xam na ne ampleur fa mu ne ampleur fa mu ne. gën a mën koo jël de. si fi mu nekk non Balla Gaye mi mu nekk loolu problème mën loolu su ampleur bi woon si ay eh, Ama Baldé hmm. exemple quoi wala benn mbër bu xaw a yem. mu jóg te fi am problème tey mënoon Sa Thiès exemple mënoon ba Sa Thiès ñoo ñu bëri mais si ki mu nekk mooy problème bi quoi mhm. parce que xam nga ay wajur nga ñu bu bëri na mais pourquoi Balla mënut a wàcc mën a naissance comme ni ko Modou Lo defee. mën a xaar naissance mën a xaar naissance. mais bu doon doon moom moom diggante Balla Gaye Franc te Franc. loolu xam nga tey xam nga tey Balla Gaye nañu waxtaan quoi Balla Gaye tey mu ngi daan avancé pour nga jël fa. dëgg yàlla mën ngaa may sax tey chance bi xam nga ko la woon noonu. bu doon doon amul combattre. wala mhm. ku mel ne dafa sama booy ñaar. Mhm. wala wala mais Fra si si biir bureau bi. bala nga di nga may euh, di nga may sens. waaw parce que tey benn Bombardier nga daal. xam nga champion la quoi bi si suñu wax mais assiette bu woon boobu assiette bu nga def am na arabale. mais na xoolal nga góorgóorlu nga du jigéen la mais dugg si gars yi. dina daan Zarko Balla Gaye dafa ci combat. waaw Zarko moom moo kuréel doomu quoi daan mi ngi daan xale yi nag mais kuréel parce que. bu doon bi bi bi mu ñëwee daan benn booy ñaar ba mu si mag ñi daan leen kon day mën ak si Balla Gaye mais mënoo ay booy yoo xam ne yaa leen di fël yow nga am ñaar bu ndaw combat. Ah. jóge ci ñaar ba am bébé jën. bébé jën waaw comme waaw gàpp doon na bëre nii nii. Ah. nga jëm bëre Balla Gaye fu muy nekk comme Balla Gaye ñun kon Balla Gaye si suñu juróom. may saas dañ digga dafa xew ñëpp a ngi may. may saas da ngay may saas xam nga am na boo ko defee yaa bloqué sa ay boy. Mm. ndax fës de Balla boo ko mën a bëre exemple Youssou Ndour man mii gàpp doon. Mm. yow nga ñu jël suñu adversaire. Mm. Balla Gaye jël suñu adversaire dam xaarum daa bëgg a lekk la. nga lekk. mais Balla Gaye dafa xaar mënuloo. Euh, non non xaaru si te mënuloo Balla Gaye dafa xaar adversaire yi rëg rëg booy ñaar ñuy waaj bëre Ama Baldé Franc Gris Bordeaux Zarko. Zarko su daanee Gris Bordeaux Balla Gaye mën na ko am sens. exemple quoi mais mënoo ñëw Zarko bi war a mu yàqu. adversaire ñoom digal Balla Gaye nga koy jël. léegi nag bu daanee Gris Bordeaux nag ko koy bañ fekk du yaa koy bañ. sa sa plan yi sa ginnaaw ngay sédd. parce Fara amul ne mën su Fara amoon kenn combat boobu mënuloo mën na may saa xam nga tey góor moo koy xam nit. te mënul lekk lekk boo ko defee rek ñu ñor. ñu ne Balla jël na avance. parce que ñu ngi wax na amul avance dañuy bëri wax ba troisième combat. man nag loolu yëgul moom Balla Gaye day wax Balla Gaye wax day wax nit ñi moom dañuy dañuy après di wax Balla Gaye bu ci combat la ñu yoroon pas 15 jours. mi ngi calendrier ci ñu noppi bu si yore dama jël. dinaa ko day xaar si taal bi ko fa génn mu jënd. non non adversaire xam nga langue dafa daan moom moo leen mujjee bëri. mais moom la li ma waxoon sànq bu doon lekk lépp. Balla Gaye tamit du machine. te jotoon bëreetul noonu mu mën a jël combat day suba ginnaaw suba chaque jour nga ne si at. te rek daw quoi. dafa jël si combat day nekk benn nekk si ay entraînement am ne si boppam. Mm. bu bu langue daaree. Mm. yenn combat yi tas ko adversaire yi see jël. Mm. mais nii nii Balla Gaye moom la jël combat. mais monsieur dégg na jël Balla Gaye bëgg nga xam ne pour titre a. est-ce que neex Amacem la daan ñaar yoon boo ko am bu daan Amacem tey la koy dàq at na ko def benn affaire dafa am Amacem nii parce que Alioune Seye deux moo tax. mooy Balla Gaye. yaay bëreeg ñëpp. daal bëri na daal dëggee Balla Gaye buy la bëggoon a may saafara yàlla na mu xaw a jafe Alioune Seye taxaw prouvé comme si booy mu prouvé. da nga koy jël. léegi la tax nga koy jël ngeen di bëre laa ngi daal Balla Gaye mën na bëre keneen léegi bu tasee nag ngeen mu soog a bëri ñu mais ni Balla Gaye bu jëlee Eumeu Sène jël adressé Alioune Seye Alioune Seye Eumeu Sène wala bëri. dossier bi mooy loolu. Aïcha am na solo macha allah Alioune Seye Eumeu Sène ñoo ngi bëri dossier bi mooy loolu. loolu la. même diggante yow foo toll actuellement. actuellement dara maa ngi toog di xaar gars yi waaw waaw waaw démb bëgg démb war a ñëw. dafa daal di ko war a bés a yàlla si non ñu si gars yi si bu baax wax ko bëgg dama yàlla bés a wax dëgg man nag wax naa leen tamit ñoo bëgg a bëri. Ah. ñooy war a ñu wax ma ñu ma bëggoon jox man kenn ki dama la wax rek arrangé ah. waaw mais man ñoo bëgg a bëri ñun ñaa leen ñu ñu bëri yomb de ndax man du ma bëgg yomb. ñoom ñu ngi fi gars yi di leen taxaw. di leen taxaw war non man bàyyi ma fi kenn xam man damay su passé ak la man. yaa ngi day doole. na man bàyyi ma fi kenn. mais am na man nga am gis mën a sa wala nga am ngeen bokk ay xarit yooyu man noonu man à part loolu xalaatuma kenn ci laam bëri naa kaf nag bëri naa rekk mais bu caaxaan jeexee xaalis génn man a doon ñu ne la. mais di xaar bi en tant que xale na ci laam nag dugal ko ci xaar. bu la bëree matul weer. matul weer mais tamit am na ñu bëri at mi ñu génn ñu da ngay bëri at yi bëri naa si ñaari yoon. am na ñoo bëreegul. daa ngi ne gore wu. waaw da nga da ngay gore quoi comme bul gaaw a ñànk mënoo bëre deux deux fois si at euh. am ñu bëriwul benn. mais avancé ñëwul rek. nga ñëw waaw mais bu ñëwee dama koy jëndi. non non moo tax man ma màggal balaa màggal foofu ñu avance ndax damay màggal. dana ko war a màggal jëndaale nag bi yóbbaale yaa ma gën a xam. Ah, mais dama ne comme yaa xam ko daw bay daam. Mm-hmm. ak desee maa ngi leen di xaar pour ñu proposé mu waaraangal moo koy jël. mais bëgg naa nag jël mbër boo xam ne su ma ko daanee na am fu ma yóbbu. Ah. parce que ma yàgg fii ma nekk waaw mm-hmm. ma fu ma jiyee. te fu ma jiyee fu ma jëlis. Mm-hmm. mën na daan dem jaar yoo ko keneen ak keneen ñun ñëpp bëgg naa. mais proposé proposé la yaa caatu yoon. non wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kenn proposé wu ma. non ah kay ñoom xam nga. mais gis nga boobu rek caatu yoon day nekk. non moom ak keneen ak keneen ñun ñëpp bëgg naa. Mm. man nañu la fay lu ko jar rek. mais gis nga tamit yeneen combat yi taxaw prince. nu mu tëjee sax mbiru kii la. waaw ah. yàlla xam nga yow moom. kii yow li ngeen ko wane. voilà yow moom kañ la taxaw. taxaw na kenn bëgg kii la ñu doon taxaw. waaw waaw waaye yaa ngi ay ca am na solo macha allah. waaw. man nag journaliste la ah bëgg am jabar journaliste boo xam ne day gën a dafay day gën a saalam baaxam sax. leneen ñu tëdd bëgg di sax ma jug na ko ñoom ñu dem dëgg yi. ma def loolu ñu parce que affaire bi gën a bëri quoi coow bi gën a tuuf xool ma journaliste yi kenn. non jàppul ma si kenn maa ngi wër daal maa ngi si maa ngi sànni ay mbaal lay kenn jàppul. Ah, mais pourquoi nga bëgg yow coow journaliste yi. Ah, parce que soo nekkee mbër soo nekkee mbër am journaliste kay loolu day gën a sotti seen bëccëg day gën a yomb. Hmm. su ma su doon promoteur bu jigéen sax daa am promoteur bi lay takk. Hmm. mais gis nga promoteur bu jigéen. mais mu gën a facilité a yomb. <laughs> <laughs> far gaaw gis kii bi da gaaw a takk. ese na <laughs> ah, bi kasim bi ma tànn après. est-ce que sëñ bi naa ko envoyé damay coow topp ma de. coow ci suuf ngay def damay coow damaa gaaw a topp. mais ci suuf ngay def. Ah. parce que bal. Ah. yow fa doon yëpp ne ma kii amagul kii amagul kii amagul kii amagul ma choisir la kii laa bëgg. Ah. ñu dox. Moussa Mourou Fall daal nee na am ñu ngi soog xattaan bi jege na. non Mourou Fall sama xarit la man Aziz Ndiaye laay am Mourou Fall. parce que dafay kay mu gaaw man mu am si benn point avance bi kay buy ñëw bu ko neexee. Mm-hmm. mais si teq dama mën a may mu ñëw. waaw mm-hmm. man toujours pare yi. waaw waaw ma ragaloo loolu. yaa pare nag. billaay wallaay <laughs> mais daal na doon journaliste. mais journaliste la bëgg naa bëgg a xool. ñoom seen bagage yi. waaw ndax xool suñu naan si te xëy na xëy na am na xam na mënoon nañu ñu bëri bagage la. te mhm. gis naa ne dañuy sàcc. mais daal bëgg naa cee dugg daal. Ah, ay ca am na solo mais ndigal euh, ñu jël nag waxtaanee ci kaaw rajo bi ñu nga xam ne génn na ci yàlla ñëpp ñu ngi ko doon naan ñu génn gis nañ ko ñu koy def bi mu taxawee génn na mu loolu koo jàppale coow li bari dina ko wax ñu bàyyi si biir diggante bi bàyyi si biir lan nga ko yàlla ay eh, bokk lañ daal ñoo bokk ñu bokk moom ba ñu la dégg naa soxla dégg naa tey ah mooy mooy kii bi quoi moom moo duggoon moom moo a moo moo moo maa rafetal ak ma ne. ñoom ñëpp ñoo far. baal nga laa dégg dañ seq. loolu la si doon tuuti mais ñu ne dañoo bëgg ko fi soo def dara ñu ngi xool faay bi nga def si wax heure la. ñu loolu. teg si table si moo tax ñoom ñoo war a invité ñoom ñoo fa gën a sàmm. laa dégg natt ko dara mu dugg génn moom moo war a xam ne toog doon su génnee mu noppi bu la pàcc organisé ba ba am ba noppalu ba xibali ko ba toog dox li moo dox lépp war a conférence de presse xam nga da ngeen xamante a comprendre ne ñoo def ñu ne def ñu ne moo lii ñu di te c'est normal loolu foog ñu wax li ñu léegi nag kii dem dafa newoon si combat capital mm-hmm. wax naa si combat capital du caaxaan te police bu ñu mbëri ñun ñenn ñi nee ngay teg galaay léegi nag loolu aussi joué comme man fi sama galaay te man damaa ne si mbirum galaay jëm si combat xam nga am na loolu du ko te ñu génnee dafa bëri rek mu génn xam nga même pas seen division de resmi loolu tax tamit mënu koo jugé ne mënu ko woon dem te dégg nga li ko nee dana si waxtaan ak ay mbokkam dana si waxtaan ak mëcca pour mën fa dem pour mën di si waxtaan ñoom perte kaay xam nga yooyu daal moo tax affaire boobu daal si xaw ma place bi wax ñoo ñoo si mag lañ. te mhm. bu ko seetlu si suñu kenn wala si tooñ tamit mais daal nay rafet daal. Mhm. est-ce que arrêté bi amul lu ndax ci ah, bëri nee nañ bi bu bëree ba daan la waroon ko ko laa ko la yàlla génn fu nekk ndax ñoom ñaar lañ daan si biir waaw ah, xel day fakk loolu mën na nekk mais xel day fakk. loo xam ne comme li ñu wax daal mooy gis nga nit. Mhm. ay toog plateau yëpp defal loolu askan bi nga defal mais li ngay def suuf moo ko doole. kilifa yi ngay woo suuf pour ñu dimbali sa nit man nag li ma wax ak ñoom Baye Ndiaye ak Sida ñoom Bécaye Mbaye loolu moo important parce que loolu ko génne mais lu tos médias yi di wax nii loolu génne ko li ñu ko doon jëm suuf moo ko génne muy fexe fay xaalis bi fexe mottali ko fexe négocier ñu wax ne bari programme te am na loolu alhamdulilah laa dañaa génn la bëggoon génn na nga sant yàlla te bañ a topp benn détail nii bu déglu yéen da ngeen a bëgg seen ay vie bëri loolu topp dana wax ba dugg si suuf si loolu laa koy digal man naa ko def yéen fi ngeen bëgg ne fi ngeen wax la moom saaga <laughs> mais war ngaa saaga sànq day riggéey waaye. sànq dama dama xam nga Sénégal xam nga. waaw wàññi naa la sànq bu sànq. waaw dama ne comme ma ne ndey dàngam lu ndey loolu. comme lu ndey loolu. mais nu mu saaga nag man naa jàkkaarloo nit directement di ko saaga ah. man mooy. parce que alxuraan am na sa xarit booy saaganteel nii. Ah. man du ma ko def man du ma saaga. Ah. comme sama kër bu foo foo boo di saaga nii li ma koy def bariwul. Hmm. man ku bañ saaga la. Hmm. waaw nit ñi nag am sama kaa bi ñu commencé communiquer ñu bëgg a yàlla mu sotti benn foofu ci communication. Hmm. loolu lañ mën a jël def arme comme teg boobu ci boobu Sarap. Sarap. Baka magsakay yung isang sa atin. na ka sa atin. Nakalang tayo. sa atin. No? Parang ama sa mga kanyayang mo. Eh, wala ka Ama pala. Gusto mo Ama mo. Daras na mo rin. Lagi na. Di sama kayo. Hindi ka na sama yung bok. Di ang rin yun. Di siya yung kain. Di ñu koy ñaan yàlla suturaat ko ma gën a du dama bañ Franc de Franc bëri na combat yu bëri moom laa faral. Mhm. wax dëgg yàlla. mais nag tey moom Ama Baldé laa faral. Mhm. combat la boo xamante ni combat bu Sénégal yëpp di xaar Ama Baldé Franc yeneen combat presse ak ak Modou Anta mais presse boo dégg daf lay fan naan gars yi ñu ngi ko doon ba Modou Anta wax te loolu boo Modou Anta nan la ma gën a. maa ngi gërëm ñëpp ñu ngi leen jàpp. mais sa jabar ji problème la boo dee dégg man man sama jabar maa ko takk yor ko ni ma ko war a yoree man su ma ñaani woon jabar su ma demoon ñaan ko su ma baatee ñu ma yàlla. parce que xam nañ ne man keroog jigéen. Ah. waaw xam nga li am na boo takkee. Ah. boo leen di déwén nga xam ne ki nga takkee. Ah. changé ko mais man du ma kenn takku ma baa takk. soo ma lee takk damay takkat. maa ngi fi ñu waxee sax ñu ñu dàq a nee nga demul sa. su ma amee ay xéwal maa ngi quatre bos a na quatre fan su ma amee xéwal. lii nii daal foofu ñu may bëgg. samay kër. sa papa ñoom ñooy doon man man damaa doon sa papa. di coono ji. yéen ñu wala ñu jigéen ñi ne bàyyi seen i takk ñaar a def crime léegi. mu takk jabar diw takk na nee na bàyyi si ñoom nekk. Oustaz Modou Fall moo leen may doole rek. ñeenti jabar laay tax incha allah. ñeenti jabar doo ko bëri coow. soo bëri am bi ngeen a defante. ñu soo gisee des fois ñaari jabar defante coow li histoire bi xuloo bi niiroo bi. moom kër gaa matul moom noonu la. Ah ah. waaw yaa leen takk. boo yoree dañoo war a yore daf leen respecté heure bi. gérer lal bi. heure tëdd bi. gérer lal bi. dëgg laa leen jox départ ba mu doy. di leen wa dëkkal leen dëkkoo leen. di leen woon. buñ cooyee nga ne ne hey hey hey baax na hey bu jógee dañoo war a nopp. pour nga tuur nga ut keneen waa bu jigéen nekkee sa saytaane la. saytaane am na wut benn saytaane. bu ndaw bu ko ay problème bu ko de. waaw wut benn ku am bëri wax. kay mën naa bëri ay ah. jigéen jigéen a koy yar. jigéen jigéen a koy yar te yéen ngeen a bari suñu tokkut ay ñaar ñett bi ñu takk leen. Hmm. bu baax <laughs> su xamee ñoo ay jigéen kese la ñu ah. Mm. suñu doon doxal bi ngeen dem foog ñu doxal la. te milieu bi ngeen nekk nii mooy loolu foog ñu leen doxal. Mm. waaw yéen ngeen comprendre que mbir ma ay diw moom la doxal sama maam jigéen ñi dañ laa war a doxal. Mm. waaw. ah des fois dañuy biir ñu yooyu lañ day génn. mais su doxul ci biir ji mais tey yow bu ma bëggee kenn si yow ma doxal ko ma doxal ko ñu ne sama mbéy mi ah nama ñu ko ma doxal. su ma doxal benn ministre lay doxal wala benn mécanicien wala benn mën-mën. tey dafa gën. bëggeel du ay kii mbër la kii jour la kii garaate kaa waaw nit ki daal ki nga bëgg bu tombee mu doon lu mu mën a doon da nga kaa bëgg waaye man de loolu laa gëm dama soo samoon benn gel bu ma nobanteel dëgg dëgg nëbb ma ko si sàbbi nëbb ma ko si kaw tali bi nëbb ma ko si interview dama koy may dédicace di ko jàngale su ma amee combat bi ñëwee instant may sama amoon la wax ak ñoom dem bëre dama yàlla may ñëw soo daanee daf continue. waxtu waaw waaw. Sénégal dañoo ragal dañoo ragal yow yàlla ragal ma dara. ayca kontaan nañu digal ñu lay jaajëfal. waaw sant nañu ñëpp di gërëm ñëpp di baaluwaat ñëpp ah di nga xam ne dañuy kafaree rek neexal affaire di ñaan yàlla def jàmm te combat yi taxaw nag sama gars yi école de Balla Gaye. xam nga combat ñu gën dañoo mën a waaw benn lañ am de danga war a am parce que ñun ñooy mën a yóbbu benn ko wàllu mbaa. émission yi xaar gàllankoor yi xaar ndigal yi xaar et cetera. xam nga ñoom dogaar gaa yi nag ñoo xam doon karaa gaa yëpp amaguñ te dañoo war a am. waaw incha allah xam naa dinaa leen bëgg ñoom ñëpp yóbbu leen albawa. dina taxaw bàyyi jox ko kooku amal incha allah moom laa mujjee bàyyi. moom daal di di baalaat ñëpp ak di gërëm ñoom. non non non dañuy taal moto yi ku ne supporté kenn six moto nga jël ku ne supporté kenn bi def. incha allah maa ñëw wóor yi fi nekk nii la. merci beaucoup jaajëf. ayca jërëjëf ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax ndigal ba école de Balla Gaye ñu ngi koy jaajëfal tey nag ñu ngi koy jaajëfal macha allah ñu ngi koy kontaan mais ayca bi ñu koy joxe anniversaire lan lañu toog séeréer yi ak ñu jox loolu Espagne bu nekk kontaanee la jaajëfal xaaral ko béy kii bu soit jëm jaajëfal ak ñu ngi leen màggal ñu amal jàmm ak bu gën a ñëw rek dina neex ci kër bu Dakar ci ko ci la yokk bu bare bare gën a gis yoon ci ami jaw kontaan naa baax baax la ñu amal jàmm ak bokk yàlla ko jàmm yàlla xam kontaan naa jaw ma sax man ci ko ñaari fatu dëgg la kon ko xale wax rek ñaareel pataas wala ñaareel pomme de terre bu seddee ne tàngee ne foofu baax na fépp foofu kontaan na jërëjëf merci beaucoup digal ñu lay jàllale bañ bëgg kontaan baax na ay salaati àndaloon sama diggante ak sama diggante ak ñu ko ñu ko ñu ko di wax ko beneen yoon beneen émission spéciale la